sama gars yi kon ni ma leen ko waxee woon rek dige bor la maa ngi nii toog nag at Mame Ndiaye Savon ki xale yi di xaar ki xale yi bëgg mi ngi nii toog Mame Ndiaye Savon dama la bëggoon laaj turu Mame Ndiaye fan la jógee at lu waral Mame Ndiaye Savon bi. waaw Mame Ndiaye moom ni ma koy waxee chaque jour rek Mame Ndiaye international Mame Ndiaye Sénégal euh, Mame Ndiaye nag boo ko géegee tur la mais sama turandoo lañ ma tuddee. waaw Mame Ndiaye Savon dañuy faral di dégg nga naan euh, Mass Zeng fa fa nga dan lal di lal si souf di liggéey tey jii tubaarkàlla macha allah ñi gis place yi mu yaaññi loolu ñi bëggon lañ mam jaay lan moy sa secret. wa sama secret nag du dara sama secret nag mom du dara lu lo liggey teel a xëy gu de wacc nak neena la bi may dafa yàgg tay la ma nit ñi wa internet bi di doga xam. mais Pikine gi ma juddo fi yaro fi magge fi ba ni ma toll ñom bu wax ci mam jaay dara sax ñom dañuy parce que xam nañ ne man nii laa juddoo nii laa yaroo nii laa màggee te liggéey rek laa xam. Mhm. te liggéey rek laa xam ci loolu la ñuy ñëw ndax nit ñi ci savon bi lañ la xamee mais suñu xoolee bitig bi dawal suñuy bët dañ naan tubarkalla macha allah maanaam lépp luy marchandise loo xam ne day taaral jigéen gis nañ ko ci bitig bi. waaw dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi ñun dañuy wax ni ay jaay jaaykat lañ.

pourquoi mun ma ko teg ci biki bi nga xam buñu ñëwé rek dañ koy yité wo suñu manam day gëna taara affaire day gëna taara affaire suñu paré dem wa waaw ci lool nak lañuy duggaat wax mam ndiaat ay employé ma ndax bitig bi kala ma sha allah gis nañ fi say employé nga bal ñu tamit dañuy xuusaat touti say yenn employé yo xamne jotton nañ fe jaar euh temps yi ñu dégg euh, manam jokkalante be ñom lool lan moko waral ak mam ndiaay nuñ ko gisee si teraanga ci mëna may wa ma chérie euh, loolu mom du dara. gis nga bitig bi employé yi niñ fi toll fukki employé yi fi nii nga toogee te ñoom ñëpp gis nga ne ñoo sol seeni kos Sénégal dafa dig ni dafa neex te nee naa la ku amul connexion doo connecté wu waaye bikitu maam Ndiaye ku fi liggéeyewul sa xol du neex non sa xol du neex sax si loolu la ñuy dikkaatal yow ndax gis nañ gii sa ŋaasante maam Ndiaye ku ko wokk dina la xuri temps yii rek euh, Zal mbay mi ngi gis a di dugal moo yoo xam ne dafa doy waar yéem sénégalais yi lu tax loolu ak teraanga bi ngay defal gaay ah waaye moom damay xam ne foofu la xelam toll ah, Sénégal nag dafa doy waar te dafa naqaree wax waaye man mi di ndayu mbili ji fëgg sama dënd sama caq yëngu ma écarté li ma ciy teg mooy preuve bu waaye am na ko dugal doo dugal lu ñaaw doo wax lu ñaaw ndax man damaa marqué samay empreinte moom nee na yor na preuve nee na yor na preuve te su gaay maam Ndiaye su nee piip ma génne preuve loolu la Zale Mbaye wax waaye bu directe waatee xool leen ndax dina waxaat ci preuve yooyu ndax dëkk bi dafa am yoon te dama takku ba dëgër mayatuma kii que ce soit kuy taxaw di wax ci maam Ndiaye leen ndax maam Mame Ndiaye femme battante la demul auberge demul baar kenn yorul sama preuve deux ans de carrière ma sonal nit ñu la jël leen tooñ fi ku nekk ku yoroon sama preuve doo wàcc. ba pare affaire bi tax li ci gën a yéeme gën cee doy waar mooy ambiance bi amoon sa diggante at Zal ndax vidéo yi dañ koy gis tey jii yaakaar naa ay nit soo leen nekkee ñaaw Steve su amee sax kenn ku nekk mën nga jàpp kóllëre goo xam ne amoon na seen diggante yéen ñaar wax ju ñaaw ji pour lan la. ah xëy na moom xelam foofu la toll waaye man du ma génn wax dara ak maa mën a wax te bu ma waxee réew mi dégg. yow loo wax doo si jaaraat. li ma la wax. ñom ñëpp samay doom lañ man guuy gu dar gi laa xale ci man lañuy ñuy yek yaang may dégg té man duma combine béré motax ay ree lañ ma def. mais ñom est ce que bëggu ñu buzz wala bëgg am euh, siiw go xamné non dama ragal né dañoo bëgg buzz ndax yaakaar na ku ci bëgg dara rek da ngay jaar ci mam jaay est ce que affaire bi du togn non du togn ambiance rek ak kaf ak reetaan mais l' essentiel daal li ma mën a wax sénégalais mooy man Mame Ndiaye Savon permettre tuma kenn ci àddina kuy génn di teg ci sama baat sama sama sama loxo bi sama yaram bi baat bu ñaaw ndax yaayu Serigne Fallou laa te defuma dara ci réew mi damay teel a xëy guddee wàcc ak ku mu mënti doom ak kuy waaj a ñëw ak ku ñu yónni booy ñëw na nga nëgër laayu ba dëgër xam ni man wàcc naa ci tous les côtés te sama der bi kenn du ko yàq ndax ñaari góor ma jur ma juddu ñetteel leen te réew mi defuma fi dara teel a xëy guddee wàcc rek laay jooy defuma dara ci réew mi nee naa ku yor preuve dugalal ndax réew mi tey boo fi nekkee rëy min di wax ñi fi nekkoon di wax ñëpp gisatoo leen parce que dañoo yor seen preuve man nag lu waay yor bu ma baal lu tool ni tarafatal ay ni ndax man maa taxaw gaynde laa champion laa du ma daw lu toll ni fatal ay ni non wuyu leen nag maam Ndiaye yéen gars yi koy attaqué yéen lay waxal ndax kenn ku nekk mi ngi jóg naan Mame Ndiaye Mame Ndiaye de gauche à droite waxalat gars yi moom li ma leen wax dafa leer dawuma lu toll ni tarafatal ay ni ku yor sa preuve génneel doo leen génne lu bon doo leen génne lu ñaaw xanaa lenn rek ngeen may xasee mooy dafa baadoola euh, baadoola bu am xaalis la te daa amul woon dara te loolu dama koy sante yàlla amul woon dara maa moom ñoo doon am yoru woon sax ñaar téeméer ba mu lekk waaye tey man maa sabab lu ba yàlla may ma du dëgg waaye li loolu euh, way bu rafet la waaye xam nga lan laa mënta supporter maam Ndiaye ñoo àndoon muy def lu bon maam Ndiaye ñoo àndoon mu yàq biir maam Ndiaye ñoo àndoon muy taxawaalu waaye loolu du ngeen ko dégg ndax man mi sama empreinte yi dafa set wecc fu ma taxaw ñu tamponeel ma signeel ma may ma visa ma tukki aw ma aw ma loxoy ñaaw. mais jaaykatu diw yi lay tendance tamit ñoom loo wax ci ñoom maam Ndiaye savon. non ñooñ moom aw ma lu may wax si ñoom ku jaayat sa xol du neex te jaayuñu. Mam maam laay wër. <laughs> ñoom seen xol neexul. waaw ñoom du ma wax si ñoom parce que seen xol neexul ku sa xol neex di jaay. doo wax ci nit. man dama ragal ni gars yi tamit euh, ku ci mel ni Zal ma ñëwaat ci moom ndax yaakaar naa sa géwél bi nga àndaloon barki démb sa xew bi nga amoon Bambey yëkkati nga teraanga bu bëri jox ko yaakaar est ce que nekkul loolu xol bi ba mu wax. <laughs> ah maye. waaw man. Mm-hmm. damaa mën maye. loxo bu ma bàyyi loxo ngi taxaw dama mën a maye nag moo tax ku ma bàyyi il faut nga wax. Euh, Papichou tamit euh, macha allah def na si yow ay témoignage yu mucc ayib nee na euh, gis na teraanga yu ngi koy defar ñëw na sa biti bi nga yëkkati somu xaalis lu toll ci 500000 jox ko mais lu tax tamit gars yi seen xol bi di iñaan wala di zaa noonu. waaw fi fi nga dugg noonu sax dafa maa neex. ndax Papichou géwel de VIP moo nekkoon sama géwél. man ku ma gis gis ma ak moo nekkoon sama géwel place bi ñuy wax tali karo Papissou moo ko immigré xaw ma immigré lañ wax xaw ma immigration Papissou mami Papissou moo ko defoon ku ci ñam rek Papissou la indaale woon mais Papissou moo nekkoon sama géwél lu may lu ma xam wax ko fu may dem yóbbu ko yàlla def mu tukki ma jël Ami Ndiaye géwél mhm. moom nag sama géwel la woon parce que fii la nekkoon waaye yàlla dafa def mu dem séparé woo mais na rafet mais maam Ndiaye man dama lay draguer tuuti maam Ndiaye des fois da ngay togn ndax yaangi sol ba di def ben publicité sol ben jean nan ku ñuul kuy ñak du ko sol ba gay am ben photo bu ñu tek si souf naan est ce que ki ngay waxal nu mu tudati sax sa employé bi fi nekkon sax tur bi la fat nee dal koku ngay waxal wa mama vulgaire wa kay kuy koku kuy koku non mama vulgaire fi la nekkoon xana day ñak day ñak non moma jaxal motax man koy laaj bo fa deug yaal xawmako kon ñu ñëwaat ci maam Ndiaye ba tey mu wax ñu palace bi njaay mi nan lay demee ak prix yi ba xam la lat yooyu. non man moom duma ma jaay moo tax xale yi chaque jour dañuy jàpp euh, euh, kii bi nu ñu koy waxatee direct bi di ko signalé parce que li may wax chaque jour rek boo tukkee bagage yi mais MSO yu moo cher ak euh, indi bagage Sénégal. ak euh, liggéey bi daal metti na mais bagage yi taxul mu seer ko ba tax na lu waaye di jënd mu seer boo ñëwee fii da koy am ci piri bu abordable ndax nee naa la ku nekk ak li nga yor boo ko indee fii dañ lay jaay ndax saag bu 8000 pardon saag bu 8000 am na saag bu 15000 am na bu 10000 am na am nañ bay am ay saag yu 5000 francs parce que nee nañ ñun tey bikit bi dañ ko ubbi mu nekk bikitu Dubaay côté bi fii mu nekk vente lait de corps mais képp koo xam ne dangaa bëgg dara te li nga fa nga daan dem muy ser bo ñëwee fi day gëna yomb ci yow ba nga jëndaat leneen mhm. mhm. wa kon ñu amati mbété at contentement bu baaxa baax tok fi ci bikitu mam jaay Savon mu dalal ñu dalal bu muccu ayib mu nangu ñu talal ko suñu micro mam jaay lan ngay tagato sénégalais wa di leen wax maangi ngi di nuyu ñepp di ñaan Sénégal jamm yalla na ñepp am jamm di leen wax mam jaay Savon nak mam jaay international la fépp la xaj ku ko woo day ñëw waaye rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay jënd ci man nekk samay cliente di nuyu sama employé di nuyu sama doom yi di nuyu ñëpp di leen wax Sénégal yàlla na fi jàmm sax yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér gu yaram te yéen ñi topp maam Ndiaye encore une fois bu leen tiit lu toll ni tarafatal ay ni nit yorul sama preuve nit yorul lenn loo xam ne daf ma mën a yàq suñ ko yoroon ba tey génne nañ ko ndax xale yi bëgguñu ku leen di déranger te man damay déranger. Mhm.